kon ñu yëg. gan gi maître Ibrahima Diop euh, ana Thiaw ni nga ko waxee greffier la ca euh, tribunal de grande instance bu euh, Saint-Louis di Ndar Géej mooy itam secrétaire chargé de la recherche de la formation et du développement de l'Union nationale des travailleurs de la justice UNTJ maitre ñu ngi lay nuyu di aman mbégte dalal ci matinalu Rewmi FM. Soxna Fatou maa ngi lay xëy. alors jërëjëf ci ànd beex ñun ñu tàmbali justement ak grève bi nga xam ne gi mi ngi ci soobu tey ngeen di def débrayage ëllëg ngeen sumb euh, grève ñaari fan ana lu ko waral. waaw li ko waral mooy comme ni ko yoon tërale ñun dañoo amul ay revendication yoo xamante ne nii suñuy ñaxtu lañ daal di koy euh, bind ci benn bataaxal daal di koy jébal le justice. Hmm. depuis le 7 depuis le 7 février 2023. Mhm. kon ëpp na weer tey. bañ toogee ba préavis bi jeex ci la jot benn bataaxal boo xamante ne nii le secrétaire général du ministère de la justice moo ko bind ci turu garde des sceaux di ñu xamal ne yenn ci revendication yi yenn ci ñaxtu yi amoon na accord waaye yeneen yu yu bees lañu kon nañ ko bind ci beneen plateforme daal di ko koy yónnee. ñu seetlu ne biñ ko biñ càmbaree lettre bi ci lañ gis ne kii daal euh, dafa ma bëgg nelaw looloo ndax bu fekkee revendication yu bees yi am na accord kon ñu yëg ko wala bu fekkee accord moom dañuy wax accord yi la lan la mu ne revendication yu bees yi mais ñu ngi ko bind ci préavis yi kon lu tax moom bëgguñoo woo ñu ñëw dajeek moom waxtaan ci suñu ñaxtu biñ seet lu gis ne kii daal daf ñu bëgg na looloo li ñu tontu doyul nangu ñoo rencontré ñu ne kon nañu jël li yoon may dañu yoon may mooy boo déposé préavis de grève nga toog weer amoo satisfaction nga dem grève moo tax tey à partir de dix heures ñun suñu liggéey fa lañ koy yemale. Mhm. ëllëg talaata ak àllarba. tamit dañuy grève de façon totale. Mm. alors nga ne li mu leen tontu doyul lan ngeen doon xaar ci moom. waaw li ñu doon xaar ci moom mooy boo xoolee grève yi ñi jiite système de grève yi en 2014 ñoom la ñuy wooyee les administrateurs des grèves ci lañ jël yóbbu leen au centre formation judiciaire daal di leen tàggat foofu bañ génn ak léegi def na juróom-ñeenti at am na ñenn ñu gaañu ci ñoom yàlla na yàlla yërëm am na ñeneen ñu dem retraite am ñu toog ba tey di xaar ba tey kenn reclassé wu leen à la hiérarchie A1 te loolu mooy li waroon nekk defuñu ko même yeneen décret yi nga xamante ne ci seen traitement la aju ñu am instance financière tey boo xoolee ce texte là dañ nekk en ballottage entre le de la justice ak la présidence boo seetloo tamit les interprètes judiciaires ñoom ak les magistrats de greffe ils sont dans la même situation juridique. te boo seetloo avec le nouveau texte le nouveau texte du centre de formation judiciaire greffier yi tey bu leen di recruter avec la licence bu leen recruter avec la licence nga de deux ans boo génnee da ngaa war a nekk da la war a euh, classé à la reclassé à la A2 waaye tey boo seetloo état recruter ñetti promo sur la base de la licence tey ba tey ñooñu traitement b de lañu am maanaam bac plus de yow. yaa ngi duggee bac plus 3 déjà ñu lay traité B2 mais loolu yabaate weesuwu ko waaye yemul foofu parce que les greffiers nekk en exercice ñoom tamit dañ la war a à la IRC a de tax nag dans un corps dans un corps il peut pas y avoir deux deux loolu mënta nekk agent yi moo xam secrétaire yeeg archiviste yeeg euh, agent administratif yeeg commune commune ak ñooñu ñëpp ñoom dañ la war a enrôler ci benn corps bu bees bu ñu créé mooy le coor des gens de grève Gepark loolu depuis deux mille dix huit voté leen texte bi publié nañ ko journal officiel waaye ba tey dara beneen mbir mooy ko tamit un fonctionnaire bu amul indemnité de logement du lu ñu neex a dégg ñu mel ni ñun yoo nee na ñun fa ñuy liggéeyee ressort fi ñuy liggéeyee. Hmm. ñun fa lañ am obligation dëkk. Hmm. waaw loolu kay la contrepartie moo nekkoon automatiquement l'octroi d'une indemnité de logement. Hmm. waaye ba tey état joxuñu indemnité de waaye li gën a yomb nag li gën a yomb mooy le fonds commun des greffes xam ne selon fonds destiné au greffe fonds bi ñoo ko moom. nee nañu nañu ko auditer mu leer mais loolu ça ne doit pas poser problème ñun ñoo ko moom. ñun ñoo bëgg mu leer ni ñu ko yoree leerul. ah ñu ko yoree leerul. ku ko yoree leerul parce que ba balaa ñu koy fay sax fekk délai bi passé bu yàgg. Hmm. ñetti weer lañ ko war a fay waaye dina dem ñeenti weer ba juróomi leer ba ñu koy doog a fay. bi ñu ko fayee léeg-léeg ñu contesté montant bi waaye pour nga prouver ko day xaw a jafe. ku gérer yooyu fonds comité am na benn comité de gestion boo xamante ne nii. le DAS du ministre de la justice moo koy jiite am na ay greffiers en chef euh, euh, yu bokk ci comité bi am na également deux représentant du SYTJUST. lu tax yéen tey lu tax yéen bokk leen ci. waaw kay loolu la ñuy wax parce que architecture l' architecture syndicale du ministère maintenant dafa changé le secrétaire de la justice ça a changé maintenant. Hmm. moo tax bokk na suñu revendication ñun suñu place il nous faut deux représentant dans le comité de gestion. Hmm. suñu prime également dañu ko fay. dañ ko fay a à chaque mois avant le dix wala au plus tard hmm. mais dañuy xaar ba ñeneen ñu am ay jafe-jafe ba commencé ñaxtu ba ah, ah banque yi téye seen salaire fii ñuy doog a xool li ñu fay wala ñu boole ko sax ba mot ay ñaari weer ay ñetti weer. Hmm. loolu daal la ñu ne loolu ñun dootuñ ko mën a nangu. Hmm. fa jeexale nag mooy le concours des administrateurs des greffes dañu ko organiser te loolu tamit. du lu war a poser problème. Hmm. un état sérieux warul xaar ñu ne ko organiser le concours mu koy doog a def ndax dans un état le procédé démocratique de recrutement c'est le concours concours ci la ñuy xamee mérite ci la ñuy xamee euh, tamit euh, euh, compétence waaye actuellement ni ñuy recruter des chefs de greffe ñun xamuñu ban critère la. Mmh. il n'y a aucun critère sérieux dans le recrutement des euh, euh chefs de grade bu fekkee pour ñeneen ñi ancienneté la mais mhm. pour ñeneen ñi doo xam c'est quoi la critère mhm. kon loolu foog ñu di jënte ko mhm. alors euh, est-ce que tey euh, ministère bi jox na leen gëdd bi war parce que euh, bu fekkente ni yéen euh, ñuy gérer fonds commun yi sax bokk leen ci te ngeen di syndicat te ñu xam ne aussi UNTG mi ngi jógee ci Sytjust est-ce que nekkul ne yéen dañ leen di jéem a euh, beddi ba tey. waaw demee jéem a bett sax mais dañuy jéem a soofantal. Hmm. parce que dafa mel ni ministre bi daf ñoo bëgg a imposer ay représentants syndicaux te loolu c'est contraire à la liberté syndicale. Hmm. waaye kii également di syndicat di représentativité xam na également dafa xeeb suñu représentativité. Hmm. waaye travailleurs yëpp ils ont été. mis devant leur responsabilité. justement ñu wax ci représentativité boobu maître est-ce que yéen tey am ngeen doole ju tax euh, seen grève bi tey mën a yëngal système judiciaire bi. waaw suñ doole natt nañ ko. Hmm. ba wóolu nañ ko ci kattanu yàlla. Hmm. boo leen yow journaliste nga boo demee wala nga yónnee ci réduction yi. Hmm. dinga gis ne di nga constaté ne le mot d'ordre a été bien observé. Euh, lan moo mën a nekk njeexitalu seen grève bi. Euh, fan lay gàllankooree système judiciaire bi. moom euh, dina gàllankoor lu bëree bari hmm. ndax nag booy dugg ci kër. fa ngay jaar mooy ca buntu ba bay ngay jaar mooy ca bunt ba. waaw mais état moom souvent day indi yeneen buntu su ngeen grévé. Ah, man man mës naa fekkee grève bu SYTJUST boo xam ne. Euh, ca tribunal ba keroog yëpp yi xawoon na gàllankooru mais dañu jëli ji ay gendarme ñu ñëw toog seen place yéen. grève waaw mais gendarme yi même bu ñu toogee suñu place. Hmm. yaakaar naa en le faisant autorité bi population bi la ñuy jéem a nax. ci naka waaye waaye ñun ñu xam fi ñu fi ñu jaar. Hmm. xam na zone de faculté. xam le concours que nous avons réussi xam formation bi ñu def ak suñu liggéey lan la xam nañu ne gendarme mënul def suñu liggéey walaay azim waxuma la gendarme sax waaye tey boo jëleen les professeurs agrégés de droit nga mettre en notre place. Hmm. parce qu'ils n'ont pas la formation que nous avons ils ne réussiront pas duñu mën a réussir affaire faire notre ndax métier lu ñuy jàng la. lan ngeen mën lu gendarme yi mënta def tey. ah liggéeyu avant la pendant l'audience ak après l'audience gis nga nekkul rek da nga dem audience nga jël note hmm. nga yemal ko foofu déedéet bu ñu paree jugement bi dañ koy formaliser est-ce que loolu général dina ko fa xaar wala bu ko mën a ngoo xaar tax tax dina ko mën léegi ki ñu àttee bu d'accordul dafa am lu ñu ooyee le principe du double degré de juridiction hmm. yoon da ko mu mu user d'une de recours def appel. Hmm. appel bi ki ko a jël mooy mooy greffier bi hmm. appel bi dafa laaj suivi su suivi la après le dossier le dossier dañ koy mettre en état kan moo ko mettre en état mooy le greffier kan moo koy transmettre ah mooy le greffe le le le le greffier moo tax jël un gendarme tuddee ko greffier ad hoc xam nga ad cette expression latine là. Hmm. ça signifie pour la cause donc un greffier ad hoc c'est un greffier de circonstance. Hmm. boo xoolee li ko waraloon moom fekk y avait pas suffisamment de greffiers te euh, ñi a tamit am des contraintes de délai mm-hmm. mais tey greffier ad hoc am amatul place am fii ci juridiction tey boo demee dans la juridiction mm-hmm. di fa fekk ay loolu dossier boo xamante ne nii bañ ko àttee ba léegi kenn kenn kenn kiw leen kenn bindu leen kenn exécuté wu leen ku ci def appel tamit ken faale wala ndax ñun bu ñu fekkal bu ñu koy àttee la ci xew ak la ci war leen ko xam après tamit ñun suñu yoon newu mm-hmm. kon tey tey daal su ma la déggee à partir de tey seen débrayage bi ak ñaari fan yi ñi ñu ciy àtte ñëpp ñu nar a def euh, ay appel walla yeneen ak yeneen bu ñu mayuwul seen mbir du dem day tagga tembe. waaw ah, moo tax sax ñenn ñi sax ñoom dañuy xool yenn avocats yi. Mm. parce que dañ nous sommes les collaborateurs dañuy waxtaan. Mm-hmm. yenn avocats dañ leen daal man ma nekkee partie civile. boo nekkee partie civile xam ne mën nga laaj ndamtaay. waaw. nee na ñu ne dañuy dañuy ñaan renvoi. Mm, ñu dàq àtte bi. waaw ñu ne bu ñu nekkee prévenu nag fekk ñoom ñoom dañuy àtte. Mm. ñu ne ñoom dañuy bàyyi ñu àtte. ndax ñu profité ci yëf yi du sori. waaw moo tax ma ne la greffe euh, fii ànd ce n'est pas du sérieux. Mm. c'est une parade de justice. d'accord alors maître waxtu bi daf ñoo xaw a saqatal ni justice di doxee tey yow en tant que acteur noo ko gisee de manière générale. justice ni mu doxee de façon générale. ah dalul xel. dalul xel ndax moo waral tey ma nekk fii si rajo bi di di ñaxtu. Mm-hmm. ndax am na un moyen important de la justice tey mu ngi waaj banque ay loxoom. Mm-hmm. mooy le greffe bu ñu nee greffe nag jàppal administrateur de greffe greffier interprète judiciaire archiviste secrétaire agent ñoom ñëpp ci greffe lañ bokk. Mm-hmm. ñoom ñu ngi war a banque seen loxo te buñ banque seen loxo daanaka dara du dox. moo ne bu ñu justice rek magistrat yi la ñuy xalaat. waaw parce que. magistrat mu am un pouvoir de décision moom mooy atte bu fekkee ne magistrat du parquet moom mooy toppee fekkee ne magistrat du siège moom mooy atte waaye liggéeyu justice du toppee ak atte kese président li muy am doole yëpp du moom mooy def liggéeyu secrétaire am te président acte bi mu jël il faut ñu authentifier ko parce que président euh, un magistrat amul lu ñu ooyee la qualité de fichier public wala ministériel ak yi muy jël ce ne sont pas te am un pouvoir de certification c'est également le greffier. Mhm. moo tax euh, euh, une juridiction elle est toujours composite. Mhm. et elle à la fois de magistrats greffiers interprètes judiciaires secrétaires ñëpp ku ci nekk ak waara boobu ba muy béy. Mhm. alors maître indépendance de la justice rapidement nit ñi di ko ŋàññi di ci am xëy euh, xel mu teey loo ci xalaat. waaw yaakaar naa nag nit ñi bu ñuy ŋàññi indépendance de la justice. wala fonctionnement am je pense que ñoom ci seen droit lañ nekk ndax justice ñu ngi koy rendre ci turu askan wi. Hmm. waaw comme ci turu askan bi lañ koy rendre nag ñoom askan wi am nañ droit xool justice na muy doxee am nañ droit am ci opinion am nañ droit également juger la justice en la critiquant hmm. loolu yoon moo leen ko may. Hmm. Euh, boo seetloo nag euh, justice également. nekkul moomeelu kenn. Mm. maanaam ñi àtte décision yi ñuy jël ñu ngi ko jël ci turu askan wi. Mm. dañu naan la justice est rendue au nom du peuple. Mm. kon peuple boobu noonu dafa am droit di seeti justice na muy doxee. dafa am droit am ci gis-gis. waaye dafa am droit sax àtte àttekat yi. xaw ma nag lañ ko waxee maanaam euh, juger la justice. porter ses jugements. bien sûr. Euh, euh, sur la manière dont la justice est administrée. Mm-hmm. loolu seen droit la kenn mënu leen ko xañ te sax boo xoolee yenn critiques yi ay ay critiques yu légitime la. Hmm. yu légitime la ndax nag euh, bu ñu indépendance de la magistrature d'office dañuy gis ne y' a y' de magistrats. Hmm. am ñu ay magistrats du siège ak des magistrats du parquet ñu ay magistrats du parquet ñoom d'office da nga leen di écarter. Hmm. c'est indépendance ñoom ils sont pas indépendants. lu tax c'est parce que ñoom dañu leen yilif. ki leen yilif mooy le garde des sceaux ministre de la justice. Mm, ki ci njëkk di procureur. waaw ki nekk di procureur te ñoom dañoo te ministre de la justice c' est une personnalité politique. Mm-hmm. ministre de la justice moom fi mu tiré sa légitimité c' est est c' est c' est d'un décret présidentiel. Mm-hmm. président de la République nekk en même temps un chef de parti. Mm-hmm. te boo xoolee la clé de voûte du système judiciaire ay am. maanaam lorsqu'on pose le débat en termes de garantie de liberté. Hmm. la clé de voûte ce n'est pas le magistrat du siège c'est plutôt le magistrat. du hmm. parquet ndax balaa nga yegg ci phase su àtte mën laa lu yàgg yàgg yàgg te ki lay topp mën laa téye. Hmm. mooy le procureur. procureur dañ ko yilif. moo tax damay naan il n'est pas exagéré de dire que le parquet sénégalais presque presque un cabinet politique. oui le, eh, le parquet a trop de pouvoir loolu yàgg nañu dégg ay avocat di ko wax. parquet dafa am pouvoir. Hmm. te parquet nekkul un par eh, nekkul un parquet indépendant le parquet n'est pas indépendant. Hmm. dafa dépendre d'une personnalité politique. Hmm. en en le garde des Sceaux qui sa légitimité d'un décret présidentielle président de la également chef de parti politique. Hmm, ba pare ñoom ñaar ñu jiite conseil supérieur. de la magistrature waaw moo faw ñu nangul leen tamit waaw faw ñu nangul population tamit seen hmm. gis-gis ci. ci justice. kon daal jàpp ne yoon moomul boppam lu jaadu la loolu acteur judiciaire bu mel ne yow bu ko waxee maître euh, dafay am lu muy tekki. waaw yoon moomul boppam. Hmm. ndax ki kii toppee mën laa tëj. même boo nekkee cabinet. même juge d'instruction bu dee ba may liberté provisoire bu procureur defee appel tu restes te pour ñu yilif ko. Hmm. ki ko yilif nekk un chef de parti kon justice moomul boppam. ci Sénégal jërëjëf. waxtaan ah, wi waxtaan wi maître mënoon nañ cee gën a xuus mais waxtu wi moo ñu dab lool xam naa du ñàkk ñu am yeneen occasion incha allah pour ñëwaat euh, plus en détail ci yooyu les sujets yitteel ñu bare bari ndax justice moom ni ñu koy waxee c'est le dernier rempart donc euh, am na ndëgër laay gu mu war am pour que aussi dal mun am cim réew ñu ngi lay gërëm maître Ibrahima Diop greffier nga ca tribunal de grande instance bu Ndar bokk itam ci UNTJ yore wàllu recherche ak développement ñu ngi lay gërëm. ok jërëjëf ok jërëjëf.